promettant entre autres d'installer le chaos dans le Sénégal. De plus, des appels diffusés à travers les réseaux sociaux invitent les sympathisants de cette formation politique à investir d'ores et déjà les grands marchés de Dakar et les principaux axes et lieux habituels de rassemblement. Or, répondant à un appel à manifester du même responsable politique au début du mois de juin 2023, des individus s'étaient attaqués à des biens publics et privés, des commerces et autres installations seul tort des propriétaires était de chercher à gagner leur vie à la sueur de leur front à travers des investissements consentis. Aujourd'hui que le calme est revenu, des indices font croire que ces rassemblements constituent de réels risques de troubles à l'ordre public. Ce, d'autant plus que des acteurs de camps opposés ont également introduit des déclarations de rassemblement par endroits. Fidèles à leur posture d'anticipation et de veille, les autorités administratives concernées ont conformément à la loi interdit les rassemblements en question ainsi que ceux prévus par les entités adverses et instruit les forces de défense et de sécurité à prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et préserver la paix et la quiétude. l'économie le communiqué du gouverneur de la région de Dakar Alhassane Sall dal leen ak jàmm seen chaîne préférée AGT News gouverneur bu région bu Dakar moo yëgal askan wi rawatina personnalité politique yi nga xam ne ñoo nekk ci parti Pastef yi nga xam ne jot nañu dugal ay demande d'autorisation ci préfecture ak sous yi nekk ci diwaanu ndakaaru ngir amal ay rassemblement ci voie publique yi ñu jàpp ko ci 15 ak 16 juillet 2023 projet boobee nga xam ne dafa jëm rek ci dajale askan wi déclaration bi nga xam ne njiital Pastef les patriotes Ousmane Sonko yëkki na ko fan yi ñu génn ñu daal di koy tasaare ci këru tasukaay xibaar yi mu diggée ne dina indi kawo fii ci réewum Sénégal bu weesoo loolu am na ay woote yoo xam ne ñu ngi koy jokkalante ci xarala yu yees yi muy sàkku ci seen sympathisants yi nga xam ne ñoo nekk ci Pastef les patriotes ñu daal di wàcc ci marché yi rawatina dërëb yu mag yi nga xam ne askan bi dañ fay faxal di dajaloo gouverneur bu région bu Dakar di fàttali ni weer ci ginnaaw xeetu woote yu ni men moo indi woon jafe culture am Sénégal tax nag ba askan wi wàcc ci mbedd mi am boutique gu jàmbur yu bari yoo xam ne dañ koo toj rawatina ay magasin ba ci sax ay station muy loo xam ne nguur gee ko moom ak li nga xam ne askan bi ci seen bopp ñoo taaba taaba ba taxawal seen i yëf maanaam daal seen ñaq jariñoo fi mu nekk nii dal tàmbali naa amaat fii ci réewum Sénégal dal googee nag duñu nangu dara lu ko xajamal moo tax xeetu rassemblement yi nga xam ne dañ koy wootee mu mën a indi trouble à l'ordre public duñu seetaan ba ci cëppaandaw ga ñu di ko door a aaye léegi nañuy jël sunuy matuwaay ndax kujje politique gi ku ne def nga ay déclaration na ma amal ay rassemblement ci ay béréb yu wuute autorité administrative yi ñu doon duñu toog yàccaaral ba mu dal ci suñu kaw dañuy anticiper moo tax ni ñu ko yoon santé nañu bépp rassemblement boo xam ne jàpp nañu ko muy ci nguur gi wala ci kujje politique gi tey sas nañu force de défense et de sécurité yi ñu jël seeni matuwaay ba benn langue bu mu am fii ci réewum Sénégal bu ko defee dinañu mën a sàmm jàmm yi ak bataaxal gouverneur bu région bu Dakar Alhassane Sall moo ko xaatim AGT News